constat fait sur les de cette le président de la République, dans son message à la nation, nous rappelait les valeurs de notre hymne national. Uni, un peuple uni. Mais là, on trouve un mur qui sépare, comme le mur de Berlin. Et à côté, on met comme à Berlin jadis des gendarmes qui ne font qu'obéir pour surveiller ce qui séparer une population qui vivait hier comme une seule population, un seul quartier séparé par un mur qui plonge jusqu'à la plage. Dans ce projet qui se veut un projet de développement, mais vous faites compte tenu, si c'était un projet effectivement de transport routier avec une société de transport maritime plutôt, avec une société reconnue. Mais ce qui est sûr, c'est que les promoteurs, l'État, les ministères se feraient le plaisir de nous montrer la société, les bateaux, les lignes en question l'impact que cette société aurait sur le transport, non seulement en, dans, dans, la grande banlieue de Dakar, mais vers Mour ailleurs, et l'impact que ça aurait sur l'emploi. Mais rien de tout cela. 9200 mètres carrés confiés à quelqu'un qui veut couper la plage et construire on ne sait quoi. C'est inadmissible. Et les populations ont le droit de savoir et ont le droit d'exprimer leur point de vue. Mais chaque fois que les populations s'expriment, c'est des convocations vers les forces de défense et de sécurité, c'est des rétentions de ces populations, c'est des jugements sommaires. Ceci est inacceptable. C'est Berlin à plein Dakar. Et c'est cette République, ce pays appartient aux populations. Yarach appartient aux Yarachois. On ne peut pas euh, empêcher les Yarachois, les gens de Dalifor, de se déplacer, Ce qu'ils attendent de l'État, ces populations, ce qu'elles attendent de l'État, c'est que cette baie hyper polluée, ce déversoir qu'on a vu, qui amène pollution, mauvaise odeur, maladie, catastrophe économique et écologique, c'est ça que les populations attendent de l'État pour qu'elle apporte, que l'État apporte des solutions. Pas des gaz lacrymogènes, pas de l'emprisonnement, Yarah souffre déjà d'assez de mauvaises odeurs et n'a pas besoin d'odeurs de lacrymogène. Jeter à des populations qui réclament la possibilité d'aller tranquillement sur la plage. Où est la loi sur le domaine public maritime Pourquoi ce mur est érigé Est-ce que ce mur est une construction révocable, démontable facilement, précaire et démontable, comme l'exige la loi sur le domaine public maritime Où sont les études d'impact environnemental L'État ne peut pas se prévaloir de la loi quand lui-même viole la loi. Et je pense que ça, le président de la République ne doit pas être au courant. Parce que je ne pense pas qu'il puisse accepter que son régime pousse le bouchon jusqu'à amener le mur à l'intérieur de la mer. Honorable, vous dites que le président n'est pas au courant, mais ce, projet a bénéficié d'un arrêté, euh, d'un permis de construire. Aujourd'hui, où sont projet a bénéficié d'un permis de construire Bien évidemment, le président a des responsabilités puisqu'il doit être au courant. Mm-hmm. Quand il y a des populations en émoi dans une grande banlieue de Dakar, mais les bulletins de renseignement tombent régulièrement sur son bureau. Mais je il doit se réveiller et savoir que c'est une bombe ici, au-delà de la bombe écologique. Ceci est inacceptable, pas seulement par les Yarahois, mais par toute la population humaine. Parce que la plage appartient à l'humanité tout entière. Parce que construire sur les plages au XXIe siècle, quand on parle de catastrophe écologique, quand on parle d'inondation, c'est provoquer justement les Parce que la mer va se déverser ailleurs, les vagues vont aller ailleurs et démonter des habitats ailleurs. C'est comme ça que les pauvres qui ne peuvent pas se construire des, des, des, des digues vont subir la folie des vagues. Parce que d'autres construisent des, des habitations et des immeubles qui ne sont pas du tout précaires, qui ne sont pas du tout démontables. Ça, c'est inacceptable. On signe dans le monde... Face à cette situation, quelles sont vos exigences En plus, en tant que euh, parlementaire, de Bien évidemment, nous allons porter le, le plaidoyer qu'il faut au niveau de l'hémicycle à travers des questions certainement euh, orales. Mais également, nous allons saisir les ministres de tutelle. Les populations elles-mêmes ont porté plainte. Nous sommes derrière elles. Et nous appelons non seulement tous les députés dignes de la République, Mais nous appelons aussi les forces vives de cette nation, les organisations de la société civile, à s'impliquer dans ce combat citoyen. Il est important qu'on sache si c'est un projet effectivement bénéfique à la nation. Si c'était si le cas, nous ne pourrions pas être contre. Mais il faut que les gens débattent et sachent. Mais ceux qui refusent le débat, qui érigent des mules et qui mettent des gendarmes, face à des populations qui leur posent de simples questions. Ce qui est sûr, c'est qu'elles veulent pour la nation, ce n'est pas une bonne chose. Qu Qu'est-ce qu que, vous exigez réellement L'arrêt immédiat des travaux ou Bien évidemment, l'arrêt immédiat, immédiat, des travaux. Et je me demande comment on peut conférer à un seul individu 9200 mètres carrés sur un projet qui n'est pas clairement identifié dès le départ pour quel, à quelle fin et à quelle utilité. Est-ce que vous avez vu la société en question Est-ce que vous avez vu les lignes maritimes qu'elle entend desservir Quel bateau elle temps utiliser Quel personnel elle entend employer dañu dégg président de la République ni mu ko tàmmee di def chaque 3 avril gannaaw bu ñu defee suñu bàkk na euh, réew muy fàttali suñuy baaxu maam yi ak valeur yi nga xam ne moom la sénégalais yi làmboo ñu jàppoon ni réew moomu danañu respecter day respecter ay loi am ay chartam waaye lii ñu gis fii mur bi nga xam ne dafay fàttali mur de Berlin di xajale yaraax ci ñaar ba ñett di tere waa yaraax di dem di tere population yaraax di jokkoo mur bi dëppawul ak charte réew mi ndax code de l'urbanisme ak yeneen code yëpp dañu ni booy tabax ci domaine public maritime da nga war a am ay construction yoo xam ne luy démontable et précaire maanaam lu ñuy neex a dindi luy nee yéex neex a yëkkati waaye tey Sénégal ñëpp ñu ngi joytu ni plage yëpp dañ ko privatisé rawatina nag depuis 2012 lu ñu privatiser ay plage jéggi na dayoo ñu ngi jàpp ni lii du jaaduwut te bu fekkee ni liñ fi doon liggéey njëriñu askan wi la ñoom ñooy gën a sawar yàkkamti woon askan wi ngëneel li fiy juddu ci wàllum population yi ñu nar transporter ak population yooyu fan lañ leen di jëlee ak fan lañ leen di yóbbu ci wàllum bateau yi ñuy war a utiliser yan xeetu bateau la ci wàllum xëy yi fi nar a euh, juddoo yan ñan ñoo ciy bénéficier particulièrement waa yaraax waaye boo gisee ñu bañ a wax ak population yaraax bi dafa fekk ni amuñu tontu ci yooyu may wax te ku dem aussi fu gare maritime am ci àdduna bi wërngal këpp doo gis mukk fu miir yu ni demee nekk ndax gare maritime mooy bato day ñëw ci tefes bi ñu war a wàcc wàcc dem seen yoon ñeneen ñu bëgg a jaar ci kay jën billet wala jël xaar beneen bato toog di xaar waaye mosoo gis gare maritime bu am mur buy dem ba ci tefes gi. mu nga gis gare maritime boo xam ne lu fa nekk lépp du loo xam ne dañ koy war a mën a dindi facilement dem leen ci réew yi ñu wër yëpp ngeen xool gare maritime waaye bul sori demal fii rek ci débarcadère gore wala embarkader Gorée foofu ndax du jàppe sénégalais yi ñuy nelaw gore gi am na ay chaloupe yu fay dem depuis ay décennies am na ay chaloupe yu fay jëkk waaye ndax am na tabax yu mel nii ndax bañ koy defar làqoon nañu population bi liñ fay liggéey ça veut dire que yii am na lu ci ñuul ñu nag waxuñu ni lépp jaaduwul waaye dañu gë bëgg ñu won ñu lu fi nekk lan la am nañ ci sañ-sañ parce que bala ngay liggéey li ni mel code de l'environnement dafa ne da nga war a def étude d'impact environnemental et social loolu amut bu amoon dinañ waxtaan ak population bii nekk suñu ginnaaw di ñaxtu dinañ waxtaan ak kilifa yi nekk ci gox gi dinañ leen xamal ngëneel yi ak loraange yi ci mën a juddu te loraange yooyu yan saafara lañ ciy teg pour mu bañ a am wala pour ñu wàññi loraange boobu euh, nu muy taree donc loolu amut muy ma terminer foofu rek muy réew moo xam ne day jëfandikoo loi pour teg ay gendarme ñoo xam ne dañ leen jox ndigal rek amuñu beneen pexe ñu ngi leen di nuyu au passage di jëfandikoo ay gendarme pour jalgati ay loi parce que lii liñ fi gis nii dëppawul ak code de l'environnement dëppawul ak code de l'urbanisme dëppawul ak tamit lu doomu aadama war a nangu. yow ngay parlementaire ndax plaidoirie koy yóbbu ci pencum ndaw réew mi. dinañ ko yóbbu ci pencum ndaw réew mi ñu ngi ciy woo tamit yeneen député yëpp. ñu ñëw xeex bi du xeexu kenn xeexu askanu Sénégal la képp ku gis ni yow lii ñor na la te plage bi plage yu ñëpp la muy député muy société civile muy association société civile yi muy citoyen simple lii raam ci ñag bi la dem buñ ko bàyyee fii moom moo jur filaawo yu ñu daaneel fële ca géejuwaay après Mboro la ñu jëm Kayar feneen ak feneen fépp fu tefes ñu Sénégal nekk Sénégal lim gu néew dinañ ko seddoo bàyyi askanu Sénégal nag ci ndool ñoom ñu nekkaat ay milliardaires parce que lii ñu def gis nii mille mètres carrés ci tefes xaalis bu bëri la. lu tax lu tax ñuy séddoo Sénégal séddoo nañu depuis palais de la République ba Wokam amatul benn fu plage nekk bëgg a séddoo li fi des ci Sénégal ñun ñu toog di seetaan ëllëg lan la ñuy wax suñuy doom président bu doon wax trois avril que suñu maam yi am na lu luñ fi liggéey nañu war a teg suñu tànk ci seen tànk. lii mooy teg sa tànk ci tànk Mamadou Dia wala Cheikh Anta Diop wala suñu maam yu baax yeneen yi du dëgg. waruñ ci mbir mi jamono ji mooy seen exigence. mais ñu arrêté travaux yi purement et simplement ñu waxtaan ak population wu yaraax wax leen lu ñu namm population bi comprendre bu fekkee ni ngënee lañ ci ñun ñëpp dinañ ci ànd jàppale leen waaye bu fekkee ni luñ ko luñ ko luñ ko luñ ko euh, ragalee lii leneen lay moo fi lay su la ëmb. bu boobaa ñun d'accorduñ ci te duñ ci d'accord bu fekkee ni ngëneel moo leen ci taxoon jóg nag comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen day fekk da doon fekk waxtaan nañ ak population bi donc nañu arrêté travaux yi vraiment jàmm ni ñooy parce que réew mi bëri na déjà ay problème buñ ci yokk ay problème